Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, vous suivez le programme de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation signée Cheikh Oussahou. Nous allons nous rendre euh, à Louga. Euh, un jeune marabout a été condamné fermement à 5 ans de prison ferme après avoir bastonné son talibé. Il y a de cela quelques jours, le verdict est tombé hier. Il de prison. Euh, parlons de l'actualité politique. Euh, le PULS, le parti de Moussa Fassi, demande très urgemment euh, l'éviction du député Issa Sall qui ne respecte pas du tout les directives du parti. Euh, Moussa demande également, il a saisi le Parlement euh, pour reprendre le flambeau euh, de ce député qui a été destitué par son parti. Parlons de l'actualité nationale. Les travailleurs euh, de l'Exias Osloton, ils demandent euh, au gouvernement de payer 4 milliards de francs CFA. Euh, ces travailleurs exigent très rapidement leur agent, sinon ils vont organiser des marches pour passer à une vitesse supérieure. Nous allons rendre à Madagascar. L'ancien président Vili Radzirat a été inhumé en présence de plusieurs personnalités du pays. euh, après avoir visé le pays pendant plus de 21 ans, âgé de ans, euh, hommage lui a été rendu par le président Ange Rajouel. Enfin, au Bénin, l'élection présidentielle est prévue dans trois semaines. La campagne a démarré sur l'ensemble du territoire national. Deux candidats sont en pour faire face au président Patrick Talon. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama Kocc Barma dañuy dox ñu fële Euh, maître coranique moo boom benn xale bu am euh, juróom euh, benn xale bu am fukki at ak ñett ginnaaw ko dóor dóor yi métti xale bi nag fa la jógee faatu tribunal nag te na koy daan yoo xam ne te tëdd juróomi atu kaso ki nga xam ne moom mooy Issa Sall di jiite nekk député fële ci assemblée nationale teewal fa parti bi di PUR ñoom nag dafa teg ci ndongal ndombal tànkam xam ki nga wax nag mooy Moustapha Sy ki nga xam mooy jiite PUR moom nag euh, li mu doon doxee dafa dëppoo ak ay chartu parti bi moo tax dañu bëgg a tekki normal tànkam lu mu gën a gaawee euh, ñu jëm si mbirum euh, xibaar xam ngeen ne jamono yi liggéeykat yi nekkoon fële ci SIAS ñi nga ànd ak mer ak naqar ginnaaw bi seen koppar si ñeenti milliards ñi ngi woo nguur gi mën leen gestu fayal seen i ndàmpaay bitim réew lañ koy tëjee fële ca Madagascar ci fi nekkoon président di di di Ratzak jëbal nañ ko boromam démb si teewaay ay personnalités yi ci Madagascar moom na réew mi atum 1975 euh, ba 1997 démb ko doon jégal borom euh, ñu teg ko fële ci États-Unis ki nga xam moo boomoon euh, ndaw américain boobu fële ci jeune tudd George George Floyd tubaab boobu nag dañu ko doon atte fële ci États-Unis yeneen xibaar incha allah yi ëllëg